bu neexee ñëpp da koy téye bu naqaree ñëpp da koy téye bi mu may liggéeyloo diisoo wu ca ku yàlla bind booba sëñ Yuusu Jenn mi ngi fi sëñ daam mi ngi fi ak li Cheikh Issa dese ci ay doom amu ci kenn koo xam da koo diisoo yow damaa woo ni man nañu ànd liggéey bi rek digal ma ko may ma ko fas ko yéene jëfe kon sant nañ yàlla bu baax yal nañ ko yàlla fayal yal na yàlla dëgëral ci darajee sëñ Touba ak Cheikh Issa mi mu doon liggéeyal xalifaam bi tedd bii ak rakkam yii mu ko bokkal ñoom ñëpp gis naa doxin wuñ doxee woo xam ne wow doxin sopp naa ko sëñ Moustapha Salihu moom ibnu Cheikh Salihu Mbacké wax na ko démb na ngeen booloo te ànd te nekk benn ndax sëriñ bi de waajal na léppam waajal na léppam wax naa ko fii démb ci garamu sëñ Sidik sëñ Abdou Salaam ñoom ndax jëmm ji ko fi toogal tey ci kaw suuf sëriñ Baar Jeen la ko joxoon bi mu jàngee ba ñibbisi mu tërbiyee ko yar ko mënoon na ko cee bañ a fekk te du ko cee am barke ndax daa judd ci kër gi xam naa lépp mu téye ko yar ko liggéeyloo ko mu nekk namar yi bokk ci dongo yi laxasaayo di bay di gor di sàmm di def lépp ba sëriñ baar jenn woo ko ñaanal ko woo bàyyam delloo ko teg ko ci loxoom ñi da koy takkal soxna am lu mbari lu mu waajalan loolu du waxi du waxi kër gi du waxi biti bëgg koo jox lu ko nga sëriñ Abdou gàntal ko ni ko ñaanal ko delloo ko xaalis ba mu ko joxoon loola nag mooy bis bii la ko bëggaloon bu fi jógee ab toogaayam mën a dëgër tam ànd ko war akam yu baax yi mboolem ñi sëñ Abdou meññi samay xarit lañu ni ma xaritoog sëñ Cheikh yàqul sama digganteeg sëñ si Chine yàqul sama digganteeg sëñ Jasaaka ba sëñ Bachirou mii ñoom ñëpp samay xarit lañu ndax ñoom ku sëñ bi bëgg rek ñu bëgg waaw sëñ Abdou man deseelu ma dara dara dara dara dara taalibe yi nag am nañ tawféex ñoom ñi ñëpp ñu ngi nii tawféex ji mooy sëñ sëñ tawféex ji mooy nit buy liggéeyal yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Issa ba am ngërëmam te ànd koog ñun ñëpp te sëñ Abdou ñëpp ko bëgg sëñ Abdou xamul sëñ sooyee sëriñu kii xamul sëñ sooyee sëriñu kee xamul kee sëñ Bas la yaakaar xamul kee sëñ Naar la yaakaar ñëpp ay taalibe lañ ay taalibeem lañ yàlla def ko muy nit koo xam ni li arab di wax la saqiila tarbiya saqiila moom la ko suñ borom jagleel. bu lay tërbiyee da lay tërbiyee ba nga nooy nepp mën naa man man naa gis sëñ Abdou Samad mii muy mbokkam di jarbaatam mu liggéeyloo ko aw ñam mu indi ko wala mu teg ko dara mu ñëw ko lim lay andiloo moo la ko dàq ci soxlawu ko waaye moom daa bëgg ku nekk ak moom sonn da daan toog ba yàgg mu téléphoné ma ni ma suba daa bëgg nga toggal ma am xar ma dem jëndi xar ma ak ay bool togg ko ñëw indi ci moom si kanamu sëñ Cheikh ñoom ñii bu napp ba jox ko boole yàlla xam na ne bu ñam wi ñëwee nii la ciy def daal waaye sama xel li may may mooy kii am na leneen lu mu la bëggal am na lu mu bëggal noonu la nekkee ñëpp comme ci gis rek faw mu sonn loola ndax baayam Serigne Touba noonu na ko ku nangu ko boo fa amee ku nangu wala sonn sëpp sànni ci àll ba loolu Serigne moo ko wax baayam ni ko mbaa amoo fi ku nangu wala sonn ku nangu liggéey mu ne ko mbàkke su ma ko amee yëguma ko mu ne ko foo ko fi yëgee sëpp ko sànni ci àll ba kon loolu ñu ngi ci ñu ngi ci sukkandiku di digal taalibe yi jaamu yàlla ak topp yàlla ak ragal yàlla ak nangoo liggéey te yàlla tax sëriñ bi ku ragaloon ñuy sal la moom sëñ Abdou Latif loolu li ma ko xamal jox na ma ay ambuloo yu bari mu di ko yóbbu ci ay kilifa yenn yu guddi laa koy yóbbu ba ma ko joxee kooka yot ndànk dëppaat ñëw loolu li ma ci yóbbu ci ay ambuloo kenn xamul nu mu toll te ñu ma ko doon jox ñoom seet lañ ndax ñu ngi dund yii sëñ Sidi mi li may booleel am na ci yoo xam ne boolewuma ak tey laa ko mas a jox na ma fii avant ni ma waree ma ko ñuy wax daam daraam yi man ko kuy daam daraam yi mun ma secrétaire u Cheikh Mamadou Fadel la woon marché occas li ko wër lépp wër naa ko mënumaa xam kër gi ba dajeeg benn jigéen laaj ko ko mun ma kër gaa ngi nii ma dugg fekk mu toog ma nuyoo moom booba mi ngi ci jagade man ko sëñ Abdou Latif de moo ma yónni mun ma loo doon ci moom man ko ab sëtam laa mu yëkkati enveloppe bu tëpp ko xaalis bi takku lool mun ma waaw man lu ma war a wax mun ko ah man de dañ maa yónni woon rek mun ma sëñ Abdou Latif moo gore sëñ Abdou Latif moo bëgg sëñ Touba sëñ Abdou Latif Jenn moo baax ndax man ñu bari fàtte nañu ñu bari fàtte nañu te diggante bii ma xamante moom fàtte xaj na fi ma ne ko waa moom de liggéey ngir sëñ Touba liggéey kon sëñ Touba la rek ñaanal mun ma kii bala ko kenn ñaanal sëñ Touba ñaanal ko moo tax wax naa bi ci njabootam yi to tànk yi leen na seen xel dal na seen xel dal ndax wóor na ma wóor yàlla ni man na maa ci sëñ Touba liggéeyal na sëñ Tuubaa ak Cheikh Issa loo xam ni fu ngeen jëm di naat te dara du ko dindi fu ngeen jëm di naat fu ngeen jëm di am xiiwal te bu leen tiit ndax moom dafa yàlla daf ko defal muy nit ku ñeme di nit ku dëgër te lu ci nekk nag ci dal rek laa waxee danuma aal ma dara li ma wax laay wax dañoo ànd maa ngi moom jóge ndakaaru bi ñuy génn ndakaaru yàlla ji atte suñu borom yëkkati aw xiin dal leen dal leen bañ agara li ñuy wax dañuy def ay sa ay sawaahit ay sawaahit la ñuy def rek bañ génnee ndakaaru xiin wi jóg maa ngi moom sawar xiin wi jóg yàlla ji taw taw boo xëy ba droite taxaw mu ma sëñ sooy looy taxaw mu ne ko sëñ bi damaa ñimeetul ndax ah, kii suñu classe yi mënatuñoo supporter ndox mi te gisuma benn oto muy daw te noo taxaw mu ne ma doxal ku ànd ak sëñ Bamba doo ragal dara may dem kër allah ji seex ka fa la ñuy reere ma moom ak yàlla ak moom ba ñuy reere ba ak asamaan seen moom ah yow sëñ sooy da ragal rek ku ànd ak sëñ Tuubaa doo ragal dara waaw foofu la foofu la nekkoon foofu la nekkoon lu mbir rëy rëy rëy rëy bu ci yemee day oyof tooy ci moom boo waxee mu ne amul loolu amul solo loolu du dara waaye nag loolu xar baax la ndax quatre-vingt-quatorze ans la dund juróom-ñeent fukki at ak ñeent ci àddadu mahnawiya ñi jàng xam nañ ko neuf neuf plus quatre treize yàlla rek mooy feeñ foofu waaw neuf plus quatre treize àddadu mahnawiya ñi jàng yëpp xam nañ Cheikh Abdou Samad mi xam na ci dara ndax kilifa booy ànd ak moom ba yàlla atte mu wàcc liggéey da nga bokk ñi ko gën a jege war nga koo seede ndax suñ kàddu yi ñuy wax yàlla da koy dégg yonante di dégg ko malayka yi dégg sëñ Issa Dieng mi mu doon liggéey dégg ko daanu du tax ñu dagg ko bukk li ma ko deseel mooy bis bii seede ko seede ay jëfam wax ci yàlla ngi dale bi seen tubaab waaw yàlla may na ko xar baax yoo xam ne képp koo xam ne waxtaanewu koog yow ni mu ko waxtaanee man mënoo koo xam ndax yàlla da koo def ñaare baatin du koy feeñal da koy mën na koy jëf waaye du ko feeñal dañoo ànd ñuy waxtaan di waxtaan ba yàgg mu ni ma sëñ bu ma ne ko ah mun ma lii ma lay wax de sand jaay baddo bu ko fekk woon mooy doon sama seede sëñ Touba defal na ma Cheikh Issa loo xam ni lu rëy la ma ne ko sëñ bi loolu la mu doon mu ne bi sëñ Bara Dieng wàccee liggéey ma toog ci place bi saa yi ñu xëyoo ubbi ko bi dañ ci fekk xaalis bu rëy mi xaalis bu rëy mi boo xam ne day tax ripp suuf badda joob bu fëggee fëggee fëggee ba teg ne su asamaan seetee bu ñu amee ñaari fan mu ubbi waat fekk xaalis ba tegewaat kon kooku defe naa am na ñeneen ñoom doon waxal waaw loola Cheikh Issa la tey du fi jóg rakab di baax ji fi nekk di Cheikh Abdou Alim ak Serigne Abdou Salaam nañu leen topp nañu leen yaakaar nañu leen doyloo Sëñ Tuubaa du jëmbat garab mukk muy daan loolu leer na ma li fi nekkoon ni meloon rek lay mel ndax jëmm ji ñu yilif léegi nun ñëpp njenn gépp mu yilif ni xam naa ko bu baax jaamukatu yàlla la sikkuut sufiyanke piir la sikkuut nit ku teel a bàyyi adduna ndem mas na ko jàpp moom la ku bëggul dara yóotuwul dara jiñul dara mooy sëñ Cheikh sëñ Abdou Salaam mii sama sama jaxasoog sëñ Abdou Latif yàqulu ma sama diggante ak sëñ Yuusu yàqal dama sama diggante ak sëñ daam yàqaluma sama diggante ak sëñ Abdou Salaam ndax man bi ma sëñ Abdou Latif jël dama teg ci wetam booba sëñ Yuusu Jenn mooy sama sëriñ waaw kon moo lay xamal ni ñoom ay nit yi dëgg lañu musuma wéet ak moom ci àdduna mu wax ma lu may gàllankoor sama diggante ak sëñ Abdou Latif saa yi ma ko nuyoo sa waa ji la may wax ana sa waa ji sëñ daam ba sa sa waa ji la may wax kon ñooñu nañ ànde woon yéen fexe leen ba àddee noonu jàpp leen sëriñ Cheikh muy seenub sëriñ muy seen lépp def defu yàlla moo bindoo noonu waaw yàlla moo ko yen te wër na may dina ko téeñal te leer na ma ne yéen ñi ngeen bokkal bàyyi yéen ñëpp jàpp ngeen loolu xam naa ko sëriñ di mi ci mag ba mu egsee ci guddi gi la jébbalu loolu nag ngeen desal seen latif jàpp këram gëm ko yaakaar ko amaa taalibe yi nga xam ne dañu ay taalibe boppam aju ci moom ñoom ñépp ku ca def la war jëddoo aw yoon da nga ko jox loxo wala nga jox ko ay rakam waaye cadre këram doo fa génn ndax kuy defaral Cheikh Issa depuis quatre-vingt-six ba léegi boo fi jógee ko kuy gor war laa defal war laa defaral man daal li ma xam te wóolu ko mooy dara du yàq waaw loolu moom leer na leer na ma day gën a baax di gën a naat di gën a am ngërëmal sëñ Touba sëñ Touba du defar lu yàqu mukk waxta da nga koy defar mu aaji ràpp nga yeesal sëñ Tuubaa lu mu defar loola muy defar moo yeesal boppam waaw kon daal samay kàddu dama koy tënk foofu ndax bis bii dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj sëñ Latif yàllaa ko waajal ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Issa saa yi masaa toog luñ dul waxtaane amul saa yi waxtaan bi dogee rek nit ay sukk ci bokkul mu noppi dañuy waxtaan fii mu ne ma dañuy waxtaan mu dem wax Angleterre rek météo yaag man quoi sëñ bi da dem Angleterre mu ne ma déedéet ma ne ko looloo ko xamal mun ma seex isaa sa maam moo bind kiis jox ma ma naan kere ma ko naanee ak tey lu ma fi dégg xam naa ko te fàttewu ma ma fi dégg rek xam naa ko te fàttewu fàttewu ma ko man ko kon loolu meneen mbir la mu ne ma dinaa la ci dolli lem ba ma doonee tut tànk Égypte dañ doon def concours boo xam ne concours boo xam ne mondial la adduna bi yëpp la lettre nga yónnee baa yónnee sa lettre maa jël numéro un lettre bañ ma félicité damaa amul jot tey mag waaye dinaa ko seet ci sa bagage ba mu génn ma teg ko sa loxo kon loola c'est beneen affaire la waaw liggéeyal na kër gi liggéeyal na kër gi liggéey bu wér cëng liggéeyal na kër gi liggéey bu wér cëng boo xam ne faaw yàlla ak sëñ Tuubaa fay ko ak seesa waaw bu fi bàyyi woon bu fi bàyyi woon ab taalibe bu mag yàlla ak sëñ Tuubaa dana ko fa jëfam ci tali bi boobu kon loola mi ngi ci doomam yëpp ànd leen takku ànd leen liggéey ànd leen topp sëriñ bi ci ay toolu béem ak xaritam ak soppeem man nag moom ngir ñàkk ma daa wees loolu mënta am waaw ndax fam tàmbalee daa yàgg sama yaay mu ngi ci barsàq nee na ma sëñ bi ba ma doonee am njëgamaar laa ko dala fóotal ay yéreem dana ma xëy ni ma jaara fóotal ma yére yi te paaseel ma ko su ma ko fóotee booba ba Cheikh Issa bu ma fóotee passé ko su ma ñëwee jox soxna Fatou Sarr man ngir ngeen ñàkk moom daa wees day lu wees daa mënta am daa mënta am sax far loolu moom moxaal la lu jomb la kon liggéey bi nañ ko ànde wala nañ koy àndaat rek waaw dañ ko ànd rek lañ koy ànde lu ma xam lu baax danaa ko wax loo man lu baax danaa ko def mbir mi ñoo koy ànd ba yomal xeyaa ba kenn ma fi jógee waaw waaw bu leen tiit bu leen jàq sëñ Touba li def kanam la jëm te du wàññeeku ndax moo ko def ci coobare yàlla ci Cheikh Issa Cheikh ci coobare yàlla mu def ko ci sëñ Abdou waajal ko ci waajukaay yi gën a mat yëpp yëpp danaa nettali benn xese boo xam ne ci laay terminé wax ji ndax wax ji metti na ci nit ñi Baye Soleil Gaye di sama ndijaay daf maa wax ne ni nga góorgóorlu ci sëñ Abdou Latif loo mën nga def ko ci ndax sëñ Abdou de yàlla waajal na ko kere mu toogee xalifa ñëw njéeréem sëñ Mor Mbay Siise dama ni ana ko wutu sëñ Baara man ko sëñ Abdou mun ma àndal ak moom ñëw fi bañ agsee ba ànd ba nungu sëñ Mor Mbay Siise mu toog sëñ Mor Mbay Siise toog bi mu jógee mu ni Souley mu ñëw mu ni ko jëmm jii de kawar yi boppam ba ci tànkam jinne yaa ko sam ko kuy teel a kuy teel a ñàkk ay tànka ngi nii kii de kawar boppam ba ci tànkam jinne yaa ko sam fees ko dell kuy teel a ñàkk ay tànke la sëñ ba mu ñàkkee ay tànk ak tey ñaar fukki at yu topp na loolu mooy firnde ji waaw jë jërëjëf lay wax ne la. dama am lu ma waxoon sëñ bi loo xam ne yaa ko feddali. Mhm. jottali muy dégg. waxal muy jigéen. soxna mbenn jenn bokk ak sëñ bi ndey ak bàyyi nee na daa am loo xam ne daa am loo xam ne dama waxoon ak sëñ bi da ko waxoon ak sëñ bi musuma koo dégg fenn musuma musu koo dégg fenn nga wax ko léegi man maa ko wax léegi moom daa bëgg mbokk daa bëgg mbokk bëgg doom bëgg doom bu ngeen toogee bu ngeen toogee amul frontière amul frontière ma ne ko sama nijaay ma ne ko mu ne ko sama nijaay adduna bépp dañuy wax ne adduna bépp dañuy wax ne daa am lu lay andil xaalis tekk ba ma tiit. mu ni tekk ba mu tiit. waaye nag weddiwu ko de. waaye weddiwu ko. dani ma dani ma. dañ ma koy jox ngir yàlla. dañ ma ko jox ngir yàlla. ma di ko delloo ci yàlla. ma di ko delloo ci yàlla. loolu moom maa ko fekkee. loolu moo ko fekkee. tey dëgg lii nga wax waaw da koo dëggal. man moo ma ko wax. jërëjëf te ba ñu ma nettali ko. kon daal soxna Mbène Ka daa ko nettali woon ci rajo yi man lu ma wax ñeme na ci ndax da day loolu lu may teg baaraam bu dee lu ma leerul du ma ko wax ba yomal xeer damaa ñëw fii di soxna soxna benn kat ne toog ci wetam ma ne salaamaaleykum bëgg arrière moom ma sëñ sooy ñëwal moom fa ne mën naa koo fekk ma egsee mun ma sëñ sooy mbeer mi daa bokkoon ci ñi war a faatu tey ñi war a faatu ci at mii ma ñaan ci sëñ Tuubaa ak Seex Isaa yàlla yokk dundam soxna si jooy ni ko sëñ bi li ngay wax man nii maa ko mat a wax man mi nga xam li newoon saa yaram jenn maa koy yëg maa ko mat a xam te jii fi may wax ak yow amatuma lu may yëg sëñ Latif borom xar baax la waaw yàlla moo ko waajal ak sëñ Touba ak Cheikh li ma leer mooy duñ ko ñàkk noon na ma bala ngeen a xam Cheikh Issa seen maam ngeen dem ba ci kanam bu ngeen demee ba ci kanam lu yëngooti di ngeen ci bokk waaw moom daa am fit te ñemee du ragal dara amul dara la muy tiit waaw waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ sooy